kon am na loo xam ne buñ ko ko dee defal dañoo xam rekk cofeel bi ma ëmbal moo tax ñu di ko jox cër boobu muy cofeel bu nga xam ne nag masu ci tricher mook Sidil Moxtaar bi ak ñi mel ni ñoom ñu ngi fi duy fi jeex keroog dama dégg benn mbokk ci benn débat bu amoon ci télévision bi maa ngi ko am ci sama portable sax mu ni yéen tiijaan yi dangeen a am chance rekk waaye bu doon ñun murit yi ñoo am Moustapha Sy du laal suuf waaw mu ni waaye yéen nag yéen la waaw waaye fekk na du problème mu tiijaan ak murit sax problème mu yiw bu ñu bokk rekk la ni ma mën a taxawe pour tiijan noonu laa mën a taxawe pour murid maa ngi fettaliku benn màggal bu daaru marnaan suñu cheikh yebal ma pour ma dem teewal ko fa bi ma duggee ci xasida sëriñ tuubaa am na murit yu ma fekk fi ma toog mel ni dañoo àndatul ak seen sago ñi ma waaw naa naa naa li nga wax sëñ Tuubaa ko wax ma ni ko waaw ñu ne ma ah ñun kat war nañoo jàngiwaat ndeke sëñ Tuubaa way fekk na kenn ku nekk auteur ba mu toll buy wax ca lay waxe te mu waxe ci kilifa mag mu waxe ci kilifa keneen benn la pour moom ndax yiw gi rekk a am solo pour moom bu ko defee kon nag ñu sant yàlla bu baax sant ñiñ ko séqal ñépp góor ak jigéen commencé ko ca kilifa ga niñ ko waxee léegi te Aziz junj ko wane ne jomaay doom la ci man parfaitement raison parce que bu ñu seetee age war naa ko mën a mbët bàyyi waaw xam naa ni it ku bëgg lu baax la dafa tollook am na foo xam ne boo fa nekkee bu la yàlla dimbalewul tànc yiñ lay tànc boo dul fippu rekk doo dem ndax ku nekk ak intérêt boo bëggee jëm fi ñu la ah déedéet déedéet nangam ak nangam nga jëm fële ñu la ah déedéet nangam nangam boo ko toppee doo dem moo tax foog nga am sa fayday bopp. xam ni nag yaa laaj yàlla jox la kon amatuloo affaire ak kenn yàlla nga amal affaire il faut avoir l'audace nag on est chef on ne le devient pas waaw moom la tubaab yi wax nit nekk ga mu nekk kilifa ba mu juddoo la ba mu juddoo la waaye du lu ko dab loolu waxin la dama gis bërki démb ñaari affaire mu jaaxal ma benn bi ñu wane ñaari première dame yi maanaam soxna bu Jomaay ak soxna bu Macky Sall ñu def ko ñaari photo ñaari vidéo pour nga xam ku ci nekkan la ñoom ñoo xam ban jugement lañ ci def mais bi ma intéressé mooy bi ñuy wax ci soxna bu jomaay ñu wone fi mu tàj furno di defar beñe di jaay di beñe tey ñu ni yaay première dame ci ba loolu am na leneen lu muy def ci nit ki moo nit ko xool mbiram rekk boo seetee fa mu jógeek fa mu yegg daa na comprendre lu tax mu doon li mu doon bu ko defee kon nag li may ñaan rekk mooy ñun coow yu bare yi bu ñu ci meelewu nañu seet liy sunu farata rekk bu jotee ñu waxtaane ko lu ñuy def ñu def ko nii rekk la tollu bu ko defee bëccëg bi dem na te am na ñu bëgg a dellu ci ngoon gi te boo sañoon du guddee ndax léegi télé bi dafa bari yu fi xew xëy na nag moom ku nekk ak nam ko firee waaye yaakaar naa ni góor gu tedd gi ba mu ko waxee yàgg na te mooy wane ni afaarit yi yi nekkoon ci pays de la sous-région ya ñëw si nañu Sénégal et sont capables de tout provoquer ay accident taal ay këri jaamur ak lu ne lañu capable moo tax bu ngeen xamoon ñun li ñuy dunde di ñu gën a yërëm soxna si xam na ci dara waaw dañ ma lëjal ci kër gi façon bu nga xam ni loolu kenn mësu ko gis te façon bu ne lañuy dikke pour provoquer la rek pour provoquer la waaw góor dina ñëw jigéen dina ñëw xale yu tuuti yi sax léeg ñu ñëw waaw da ngay jaaxle ca àdduna waaw moo keroog bi góor gi nettali façon yi ñuy xeexee ak yow dama mu jaay rey jàpp ma ndax li muy nettali yépp mu ngi diireeku sama kaw waaw ma cay jàppante ak ñoom waaw te li lay jaaxal mooy ñi nekk ak yow ci néeg bi duñ leen gis waaw yaa koy nettali rek ñu naan la kañ kañ te fekk ñu ngi fi woon waaw waaye ñu mën a tooñ a ngi ci nag waaw parce que kenn def leen yarul te amuñu kilifa waaw waaye loo ci man yàlla leen may waaw ñuy dugg sa néeg te duñu fëgg waaw jékki-jékki rek taxaw ci sa kanam te duñu jaar ci bunt nu leen neexee nag lañuy ñuy ñëwee léeg ñu civilisé solo ba jekk bu dee góor noonu bu dee jigéen noonu waaye léeg ñu ñëw ak seen xaalu bopp dangay waru jàdduna waaw seen yoon waaw bu ko defee nag provocation yi ci accident yeeg yeneen ak yeneen mu ngi bare waaye fekk ne itam ah foog nga xam foo ciy jaar ndax du mbir bu nga xam ni n'importe qui mën na ci intervenir dafa am loo xam ne bu dul sa cër yàlla seddu la ko dangay tey te yéen a toog fii ci champ de course suñu cheikh wax leen nii leen dafa am bés muy waxtaan ak Iblis moom Serigne Cheikh Tidiane moo leen ko wax fii ci champ de course mu ni may waxtaan ak Iblis ba ci yàgg mu ni ma man dafa am sarax bu ma bëggoon ñu defal ma ko ndax mën nga ma boolee ku ma ko defal Iblis nee na ma ne ko waaw mën naa la boole ku la defal nee na ma ne ko am na sama benn njaboot bu ñu wax Alaaji Sidi Ndiaye ca Pikine mën naa koo wax mu defal la sarax bi te nee na bi muy ñëw ci man loxo sax yoru ko ne ne na ma woolaa ji Sidi Ndiaye ba mu ñëw ma ne ma boole ko ak moom pour walla am na ñu nga xam ni yi inquiété nit ñi inquiété leen waaw ndax romb nañ yooyu yëpp waaw bu ko defee rek kon am na koo xam ni nit ñi duñ ko gaaw a xam mukk ndax façon bi mu leen réeree dafa ëpp keroog Ibrahim bay rekk mu ngoy yi ni ci sëriñ kan bu alaaji Ousmane kan la ko diggi nee na sëriñ kan ni ko gis nga sëriñ Cheikh ak sëriñ Moustapha nit ñi duñu gaaw a xam seen seen cër ndax seen civilisé gu ëpp waaw mu ndax boo civilisé ba mu ëpp rek nit ñi dañuy am yu ñuy jaawale waaw ku nekk ak fa mu toll ak na mu mën a déggee ki dul gis lu dul li ci kanam li ci kanam rekk lay gis mais ki yàlla dimbali mu mën gis la ca gannaaw fa kachafna anka xitaaka fa basaruka al yawma hadid ñooñu it ak seen cër ba defee kon nag eh tisbaar ji dugg na waxtaan yi du jeex waaye occasion yi it ngi am benn mbokk keroog mi naan ma géej nga def gàmmu ca yeen mu ni ma te bu ñu sañoon nag wax dëgg yàlla nga saraxaat yi